yak musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ndax li nga xam ne moo nekk ci déclaration patrimoine bi nga xam ne moom la ñuy wax ne Idrissa Seck moo ko moom milliards ya bari na lool loola waaye nag li nga xamante ni moo am ba de sàll dañoo violé loi avril 2014 ci déclaration ndax dañoo wax ci article 9 ne déclaration patrimoine kenn amul sañ-sañ maanaam di ko génne di ko siiwala en tout cas li am weng ci mbedd mi bëri na ñoo xam ne ñoo ngi ciy commentaire ndax ay milliards yu bëri yoo xamante ni daan nañu ko say nemmeeku Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono moo fi jiite woon groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ci réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy waa OFNAC foofee nga xam ne fa la yii di defee déclaration patrimoine ba njiitul OFNAC moo war a jéem a gëstu jokkoo ak yoon ngir nag ñu topp ki nga xam ne moo fësal déclaration patrimoine boobee Idrissa Seck li am ba desal bëri na ñoo xam ne dañoo làqatu ci suufa ngir nag tilimal Abderam ngir ray ko politiquement ndax bu mu duggee ci gouvernement bu Macky Sall bi ñu dénk ko conseil économique social environnemental ba léegi yii di Idrissa Seck maa ngi dund musiba ak mbelengaana maanaam ay ñool-ñool ak i giita ngaasa moom la ñu ko koy indil en am ba des sall lii dafay tax sénégalais yu bari daal di a jéppi yi Idrissa Seck yéen a kaay gi di enquête xëy ci déclaration yi nga xam ne am na ay kilifa yu ko def ci réew mi journal bi li mu xëy di laaj mooy déclaration patrimoine yi est-ce que waruñoo génn yëpp nag ko public génn ko ci mbedd mi sénégalais yi xam lan moo a kaay ci coronavirus bi nga xam ne mooy jàbbaajo ngi ci réewum Sénégal journal bi nee na ñetti fan yi lu toll ci junni ak fanweer ak ñaara ci ay nit amee nañu coronavirus yéen a kaay gii di Vox Populi nee na gars yi ñoo ngi toog di xoolee waaye nag musiba ma bu kumba soo muy tuule dina am ci réew mi ndax benn fan ci weeru janvier jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru janvier lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay sénégalais faatu nañ ci woppi coronavirus yéen gii de la Soleil nee na en tout cas li am te ñu nemmeeku ko ñëpp bàyyi ci xel mooy Kaolack Touba Saint-Louis foofee woppi coronavirus ba ma nga fay jaaba jonge bu baax a baax yéen a kaay gi nee na woppi coronavirus yi ma ngi jaaba jonge fi nga xam ne mooy Kaolack te teewul waa Léona Niassène ñoom nee nañu seen gàmm gi nga xamante ni fukki fan la ak ñaar ci weeru mars danañu ko amal Le Soleil ne xanaa déggoo leen ma Kaolack woppi coronavirus ja ma nga fay am Les Échos nee na Léona Niassène ñoom seen gàmm nee nañu danañu ko amal yéen a kaay la Tribune nee na njiitu réew mi di président Macky Sall dafa tàncu dafa coincé ci diggante catastrophe sanitaire ak catastrophe alimentaire ndax woppi coronavirus ci ak couvre-feu bi teewul ma ngi gën di law ci réew mi nit ñi di gën di dee lu soxal wàllum catastrophe alimentaire bi loole tamit ma ngi ci réew mi ndax bëri na ay njaboot yoo xam ne mënuñoo xëy ndekki añ reer ay waajur yu bari yoo xam ne jamono ji sonn nañu jaaxle nañu tumuranke nañu fenn fu nekk dañuy xëy di fa tuñ tuñi journal bi yokku sa chômage technique bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci bërëb yu baree bari yéen kaay gi de Les Échos ñu xëy fekk fa ab Fati sel su li mu gis nee na woppi coronavirus yi ak ni nga xam ne moom la yokkee ci réew mi dañoo war a tëj école yi yéen a kaay gi di réew mi ko di jen xëy di ñu xibaar naan ñu Aminata Lô Dieng mi nga xam ne nekkoon na fi ay ministre jamonoy Abdoulaye Wade mandat nañ ko dépponi ki démb la ñu koy toppee violation couvre-feu maanaam jéggi war ma ab agent de l'État bu nekkoon ci ab liggéeyam faux usage de faux danañu ko àtte ni ki suba ci àllarba ji yéen a kaay gi di Sud nee na lu soxal wàllum boole élection législative yi nga xam ne 2022 la ak élection présidentielle 2024 ki nga xam ne mooy Ababacar Fall ko boole loolee loolee jalgati luwaa la ndax bu ñu ko boolee danañu yokk mandat ñi nga xam na ñuy député te bu boobaa du ñu ko teg fen yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak l'observateur ak vox populi ak las xëy di ñu tàgge maître Khassimou Touré mi génn àdduna ni ki démb ci Touba tey jii dinañu ko jébbal boroomam surnal bi nee na maître Khassimou Touré ràññee ko woon na lool ci lu jëm ci dossier Khalifa Sall caisse d'avance bu Ndakaaru ak lu soxal dossier Idrissa sa ak Abdoulaye Wade yéen a kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu cité mixa ci Dakar lu toll ci fukk ak ñaar ci ay nit waa dikk dikk na fa ba teg leen loxo la ko waral bokk na si dañu doon amal li nga xam ne mooy ab soirée ci jamonoy couvre-feu bi waaye nag li nga xam ne mooy yàmbaa ji tamit doon na fa jaaba jonge teg nañu ko loxo yéene kaay gi du l'observateur xëy yóbbu ñu diwaanu Grand Dakar nee na foofe dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne fukki at ak ñaar la xale bu jigéen bi am ay samba buy ay samba surabaali ñoo jàpp xale bu jigéen bi tëj ko lu toll si ñett ci ay semaine maanaam ñetti ay bés di siim ak moom mari ngañam maanaam ku yéeg ba sa xol sedd nga jox keneen ki journal bi nee na yëmuñu sa loolu